Ah, dama gis nga nga nga attaqué bon attaqué woon média yi. Hmm. daf ko da nga ko def subtilement corporatisme oblige. Hmm. mais dama gis ne ngay traiter la société civile de société civile euh, rentière des des des des tensions politiques. vous n'êtes pas trop dur avec la. société civile non du tout au indulgent. Sénégal ngay gis société civile. ñaari nit am problème ñu dem tribunal ñu ne non il faut classer le dossier il faut pas le am na fi ñu ko wax amaguñu ko. est-ce que su une posture de la société civile société civile Sénégal moo taxaw nit déposer dossier candidature viol violer la loi ñu ni non on mais de côté les procédures pour faire participer tout le monde. c'était au local. loolu am na fitou benn du ñaar la société civile si ça arrange on dit au nom de la paix nañu lem loi bi teg ko de côté pour dox li nga xam ne mooy indi jàmm jàmm boo koy. di na ko indi dañ ne ne par exemple quelqu'un comme Alioune it dit conditions yi ñu aménagé ba mu profiter ak Karim Wade et à Khalifa Sall waroon na profiter ak ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko Ousmane Sonko doit prendre part à cette élection. xam nga loolu mooy yëfu nga baal ma expression ma ko du ma ko wax sax du ma ko tudd parce que day du tegginu Karim Wade il n'a jamais refusé de comparaître devant la justice xalifa Sall mosul bañ ni du ma waaju tribunal. dañoo nangu dem tribunal ñu juger leen ñu utiliser seeni i voie de droit ba mu jeex ñu am grâce ba mu jeex ñu sàkku leneen procédure ya dox mais ki taxaw ni dama wuy ji tribunal respecté moo benn institution la la justice ne m'engage pas euh, procédure bi sax jeexagul nga bëgg a taxañ loolu lépp nag ci am réew ba xam ne dañuy réew de droit la ni nañ ko malgré tout na ñëw bokk au de quoi mais loi loolu mooy loolu mooy non non foofu loi amatu fa. mais application wu loi dafa war a général et impersonnel. ci mbiru dialogue bi eh, dañoo eh, gis ne eh, dafa daan mu dugg ci dañoo gis ne euh, dañoo gis ne quand les modifications son ciblées de sorte à permettre à xalifa Sall et à Karim Wade de pouvoir concourir est-ce que mënuñu woon def lu large. ku ci dugg nga dugg ci. ku ci bokkul bokkuloo ci. boo nee loolu def nañu modification ba nga xam ne c'est ciblé. je partage totalement li nga wax te man d'accorduma ci lu mel noonu procédure ñuy doxale noonu état d'accorduma ci mais la ñu mën a appliquer noonu mënuñu ko appliquer fii xam nga tu sais procédure aussi dafa am il faut mu nga jeexal procédure topp ko grâce boo ko bëggee may nit ki. foog mu épuiser tous tous foog foog mu épuiser recours yi wala euh, procédure décision bi nekk décision définitive ah na naka nga mën a appliquer la nga xam ne ni yow loolu yoon mayeegula ko nga bëgg ni xam nga loolu mooy. taxañ mbir yëkkati loi tegi ko teg fële te loolu buñ buñ gis nga loolu euh, même bu ko réew bu ko état bi defoon dina créer un précédent dangereux. mais il y aura des précédents ah, dangereux. ah mais justement. il y en a tellement déjà justement may mun a loolu nag la ñu war a éviter loolu la war a éviter parce que waruñoo mën a dikk di def la nga xam ne defu wut ci démocratie wala defu wut ci état de droit waruñu ko nangu gis nga euh, li nga xam ne ni moo. xew Sénégal dañuy dem ba xel dañu nekk démocratie des petits arrangements